ci beneen point boo xamante ne bëgg nañ ci taxaw tuuti déggoon nañ Oustaz Oumar Sall yëkkati ay kàddu yooyu noonu ci euh, wàllum malaanu wasifa ci li nga xamante ne ni mu ko defee ne bidaa la yonent bi daanu ko woon def lal say sijaada di wax allah allah allah amul fenn fu ñu ko def ci alxuraan ñi àndoon ak yonent bi amul ñenn ñoo xamante ne daan nañ ko ci def ba li nga xamante ne nga ko sànq muy kaamin wàcceel ko ni nekkul ci yonent bi daan dundee Euh, kàddu yooyu boo ko déggee nag moo koy jàpp. na ko jàpp na jàpp loolu baax na waaye ñun ñu ngi ciy def baax na. nañ wàcc suñ kaamee rek nañ suñu malaan rek di jàng suñu allah rek di jàng suñu laa rek moom gëmu ko ñun gëm nañ ko na. moom gëmu ko ñun gëm nañ ko. Hmm. ku dee ñu wàccee la kaamil gëmu gëm nañ ko. jeex na amul problème amul problème amul détail amul dara moom am na droit gëmu ko gëmu ko ñun am nañ droit gëm ko gëm nañ ko jeex na gëm nañ ko dañ koy def ku dee danañ la wàcceel kaamil danañ la jàngal ay xulwa lal malaanu wasifa danañ ko def lépp danañ ko def incha allahu te mënta wax bañ bàyyi ko comme ni mu gëmee ñàkkam ñàkk amam noonu la ñu gëmee am ñu nag ñun noonu lañ ko gëmee yonent bi daan na ko def ak daaw ko def ak loolu lépp suñ yoon nekku ci ñun daal danañ lal malaanu wasifa ku gay dee danañ wàcceel kaamil loolu daal dinañ ko def incha allahu taala mhm. moom nag moo moo gëm moo gëm la mu gëm baax na na ca nekk ñun ñu gëm li ñu gëm ñu ngi ci jeex amul amul amul détail donc jotoon na fi wax yii xam mm. naa ne beneen kàddu la rek jotoon na fi wax kii di Alaaji Malick si dañu yàlla taala kii la Michel lañ ko doon tuddee donc jëkkoon na fi wax ay wax kàddu yi nga xamante ni ñu xaw a tegginewul la est-ce que itam tamit ñu bàyyi nit tam muy wax di wax ci li nga xamante ne mooy pas-pas nit tam du dem ba am gàllankoor ci diggante doomu aadama waaw xam nga sax wax boobu jarutoon indi misel ak móoloog faatoog yëpp jarutoon indi waaw wax na ko moom jeex na ñun daal suñu alaaji Malick la maam alaaji Malick la radiyallahu li ko gëm ëpp na ay téeméeri junni yu gëm alaaji Malick li koy déglu ëpp na ay téeméeri junni yu bëgg alaaji Malick këram am na xilaafa koo xam ne ku fa toog yaa fa nekk jeex na moom daal lu gis baax na lu mu gëm baax na moom daal lu na bàyyi nag alaaji Malick xam nga nit itam doo nekk di di moom rek mu ne pat ngay leewaatoog moom mu ne pat bu yàggee nga am lu la bett waaw gannaaw ñun waxuñu ko dara na maandu suñu mbir na maandu ci Seydil Hadji parce que ñun dugguñu ci domaine am dugguñu ci li ñu liggéey dugguñu ci li ñu gëm ñun ñu ngi ci li ñu gëm nañu bàyyi li nu gëm tout tranquille maandu ci ñun itam ñu nekk ci li ñu gëm waaw parce que loolu moo gën ba noon dana am lu ko bett parce que nag Seydi Hadji Malick duñ nangu kenn di ko laal kenn di ko laal duñ ko nangu waaw ay nii lañ ko doon wooyeeg nii lañ ko doon wooyeeg loolu yëpp suñu yoon nekku ci ñun loolu xamuñu ko li suñu yoon nekk daal maam Cheikh Al Hadji ñu ngi ko tuddee Thierno Malick Sow ma ca Dagana moom lañ ko tuddee dem naa ba fa mu Maodo juddoo dem naa ba fa yaayam doon toggee yaayam moo daan toggal waa daara ja di jël ay séram di leen ñawal di tubal tubal xale añ di leen gunge guddi di dem tëdd yaay ma Maodo dem naa ba ci kër ga cin la mu doon toggee yëkkati ba mu ko doon jëm a yëkkati nekk cin loolu bokk ci ci ci bokk ci mi cinu euh, yu la ma ne ko cas mu dis ma bàyyi ko man man la woon ak Ndoye ak euh, Ndiaye Doos mm-hmm. ñun ñii ñoo àndoon mm-hmm. ñun ñii ñoo àndoon defe naa téere bi bàyyi euh, Seydi Hadji Malick bàyyam doon jàng jël naa ko ba yëkkati ko mu ngi ci internet boo ngeen ko seet mm-hmm. mu ci internet donc loolu lépp def naa ko. kon ñun beneen tour bu ñu dégg lu ñu lu ci dem. lu ñu ciy intéressé. mais cas à chaque fois muy dal ci li nga xamante ne mooy kër wala ci ñenn. non non loolu dafa jaaduwul. ci këru diine yi jaaduwul. waaye itam looy ku toll ni Cheikh El Hadj Malick koy critiqué ku toll ni Serigne Touba radiyallahu anhu koy critiqué ku toll ni maam Cheikh Omar ku leen di critiqué même ñoom bu ñu nekkaloon ci yoon sax te góorgóorlu nañ war nañ leen suturaal. waxuma laak ba ñu nekkee ci yoon nag ba ñu nekkee ci yoon woo xam ne ñun ñii cam moom koo doxoon pelante day taxaw mag ñi jaar foo xam ne jaar tubaab foo xam ne jaar ba diine ji mel nii mais nañ bàyyi nag nañ moom daal li may digle li ma koy digal te di ko ko conseillé mooy na bàyyi Seydi Hadji Malick na bàyyi Sëriñ Tuuba na bàyyi mag ñëpp su leen bàyyee muy jàmm moom la mu gëm mu nekk ci ñun li gëm ñu nekk ci parce que moo gën nag mu di ko topp di ko topp ti bëri na looy topp te am na ko lay topp ti yëgoo ko bëri na topp te am na ko lay topp ti ko te bis bu ni la xës nga xam ne jeexal nga waaw bu nekk xës ci sa kaw nga xam ne jeexal nga bëri na koy topp ti léeg-léeg topp xamoo ko bu ni xës ci sa kaw rek nga xam ko kon nag kon nag kon nag da ngay teey da ngay teey nit dafay teey lu sa yoon nekkul sa yoon nekku ci bu ci yoonam nekkoon à la rigueur waaye yoonam nekku ci yoonam nekku ci la ci yoonam nekk euh, génn rek voilà. à chaque fois mel nii saa ay na moroom la ñuy dégg kàddu yu mel nii murit bi wax na lu ni tijaan bi wax na ni ibaadu bi wax na ni te ñoom ñëpp nee nañ ñoo bokk lu ñu gëm ñoo bokk lu ñuy tari bu ñuy julli. man daal li ma wax waa naa ko. Mhm. nañu moytu mag ñi. nañu moytu mag ku moytul mag ñi li ngay yoot nag boo ko xamoon li lay yoot boo ko xamoon nga bàyyi li ngay yoot di dem ci li lay yoot waaw li lay yoot nga bàyyi li ngay yoot dem ci li lay yoot ku ko ci moytuwul dana am lu ne xës ci sa kaw te doo xam lan la nañu bàyyi mag ñi tout tranquille bàyyi Seydil Hadji Malick mu mel ni mu mel bàyyi Seydil xaaji Malick mu yor njabootam ndax njabootam dégguñu wax kenn dara daluñ ci kaw kenn daluñ ci kaw dañuy dal seen kaw rek mais loolu du yoon mais du yoon parce que nag topp kilifa jàmbur di ko xas ti ñi ko gëm euh, ay millions yi doomu aadama kenn xaju sa kaw mais di ko xas loolu du du dëgg lu dëgg kon nag nañu nañu nañu bàyyi loo rek di dellu seen bopp nañ gëm li ñu gëm bàyyi ñu gëm li ñu gëm moo gën waaw loolu moo gën Euh, kàddu yi mel noonu nan la mën a def ci ndaw ñi nga xamante ne ñooy soogay juddu war a ñëw doon yi mag ëllëg ñuy dégg kàddu yi seen kilifay waajur. yan kàddu. loolu lu amul dara lu muy def ci ñoom du def ci ñoom dara. parce que lii du kàddu lii matul wax. matul wax bay bay def ci kenn dara du dara. du tus lay dara. wax jooju du dara. waaye na ko moytu rek gannaaw du dara daal na ko moytu rek loolu moo gën. parce que itam nit day moytu féewale. day moytu fénqale. day moytu boole ay nit tiit am na loo xam ne bu amee ci réew mi àdduna dana tukki mag ñi nañ leen bàyyi ñoom mën nañ koo muñ waaye seen njaboot mënu koo muñ mag ñoom mën nañ koo muñ ndax seen njaboot mënu koo muñ parce que li tax ñu mën koo muñ dañ lay bàyyi yàlla jeex na xale yi nag ñoom mënuñ laa bàyyi ak yàlla dañ lay dañ koy fajal seen bopp te buñ faje mu ëpp kon ni ñu tey rek ni ñu bàyyi rek mu mu sedd waaw. ñu ngi leen di faagaagal fële ca Israël foofu te gisuñu benn sénégalais jug ngir manifester ko wala naqarlu ko donte sax am na si yeneen i réew yi nga xamante ni duñu ay jullit waaye ñu ngi xal ak di manifester di yëg mu ne loolu metti na leen yooyu gis nga ci am. gis nga loolu Euh, Palestine ak euh, Israël yàgg na loolu moom du tey xeex bu yàgg la te gëw maa mu gaaw a dakk ndax itam këli la mu bëgg kii du ko nangu kii li mu bëgg këli du ko nangu gannaaw du ko nangu nag duñ gaaw a nut ñun nag ah luñ ci luñ manifesté woon nañ ci waxoon nañ ci suñu kilifa bindoon nañu ci waxoon nañ ci sonnoon nañ ci amul njëriñ kon baax na nañ bàyyi yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko yàlla moom lu mu song nga daanu waaw nañ bàyyi yàlla rek yàlla moom mu xam na li muy def nañ ko bàyyi li Palestine def Israël di ko def xam na ko jeex na nañ ko bàyyi ak yàlla rek yàlla dana ko régler nañ ko bàyyi bàyyi ko yàlla rek dana ko régler waaw ah ñu ciy dee ko yàlla xam <laughs> ñi dee xam ne ko ci dara ñi cay dee ci ay bakkan yàlla rekk a xam waaw ña ña ko def am nañu am nañu toor ñu ko def am nañu toor parce que xeex moo baaxul xeex moo baaxul ci ay réew wa jaala ay aysatan waaw xeex baaxul ci réew dañuy jël ña nga xam ni ñoo ca teddoon def leen ay doyadi ñu doyadi jël ña nga xam ni ñoo baaxoon def leen ñu bon xeex baaxul xeex li ci bon day yàq réew day yàq ñooñu réew baaxul. baaxul. Euh, pour euh, def parenthèse rek laata ñu ngi dégg ay coow wala kàddu xuloo yi nga xamante ne mi ngi dox ci diggante ñi nga xamante ne moo di Baye Fall yi ak civil yi nga xamante ne ñoo dëkk Touba a chaque fois euh, ci wàllum na ngeen bàyyi lii duñu bàyyi lii dem na léegi ba jur ay xeexoo yoo xamante ne ñu bëri ci dëkk bi ñu ngi alerter ngir bañ mu ëpp loxo. loolu nag dañ ko bàyyi ak sëñ Mountakha moo leen bokk yélif ñu ko bàyyeeg moom lu mu ca dogal rek baax na sëñ Muntaxa daal lu mu ca wax rek baax na parce que nit du jiitu kilifa te boo ko jiitoo mu mu génn wax lu wuuteeg li nga wax da ngay rus da rus da ngay bàyyi kilifa gi rek mu génn wax li muy wax su waxee nag ñëpp nañ ko jëfandikoo nañ ko bàyyi sëñ Muntaxa rek mais ñu bëri dañuy déggee rek la moromu civil am moo faral yéen yi. nañ ko bàyyi ak sëñ Muntaxa rek nañ ko bàyyi ak sëñ Muntaxa rek. Ah. sëñ Muntaxa daal bu waxee jeex na. Mm-hmm. waaw nañ ko bàyyi moom moo leen bokk yilif jeex na moo leen bokk yilif te sëñ Muntaxa ñàkkul fayda ñàkkul fulla ñàkkul fayda ñàkkul itte lu mu war a doon bu wax heure heure ba jotee na ko wax. Mm-hmm. waaw nañ ko bàyyi moom rek. Mm-hmm. waaw sëñ Muntaxa moom amul amul amul amul amul morom. amul morom ci nga dugg ci loo war te dugg mun. dana ko faj te du ci sonn waaw moom waxam benn wax la boo gannaaw loolu am na nag ci diggante seen diggante ñoom ne nañ bàyyi bu kilifa gi bu kilifa gi àtte muy noonu waaw mm-hmm. kay mm-hmm. am na solo euh, otage ñu waxtaanee euh, nga xamante ni yaakaar naa ne ñu ngi koy xaar muy le